Pierre faj na nit ku lafañ ñu ngi jukkee nettali bi ci téere jëf ya saar ñett ak saar ñeent saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu nañu bamtu nettali bi weesu benn kan moo fàttali fukki ndaw yi ak ñaar lépp li yéesu yeesu jàngaloon bi mu nekkee ci àddina xel mu sell mi moo leen ko fàttali ñaar ñan la ndaw yi jàngal lépp lu ñu jàng ñoom ci seen bopp mbooloom ñi lañu ko jàngal. ñett lan moo xewoon bi taalibe yéesu daan seedeel yéesu ci ñeneen ñi. yàlla yaatal na mbooloo ma def mbooloom ñi gëm di gën a yaatu. taalibe daan nañu seedeel yéesu ngir ñeneen ñi dolliku ci mbooloo mi bés bu nekk nit ñu bari daan nañu tuub te gëm ne yéesu mooy musalkat bi yàlla dige ñi tuuboon doon nañu nettali ñeneen ñi ni ñu tuube seeni bàkkaar doon nañu leen wax ñoom itam lan lañu war a def ngir mucc ñeent ci seen xalaat yan yëf la mbooloom ñi gëm yeesu war a def tey jii mbooloom ñi gëm war nañu def ni mbooloo mu jëkk ma jàng yàlla jàppante màggal reeru borom bi ñaan yàlla dimbalante màggal yàlla ak seddeel yéesu ci kanamu nit ñi